di la nuyu itamit ci turam soxna Aminata taal nag euh, bés bii bésam la itamit ndax ci kër gi la bokk bu dul loolu yàlla dafa def itamit sëñ Abo depuis 2013 ñu bokk ak moom conseil économique social et environnemental yàlla doxal kóllëre boobu suñu diggante ñu koy dox boobu ba léegi mu nekk nit bu oyof nit bu wàcce boppam nekk xaritu ñëpp ci conseil économique bi lépp lu mun ta xew lu mu sori sori dina góorgóorlu ba teew loolu moom ñëpp mun nañ ko ko seedeel conseil économique social et environnemental ba fa nekkee itamit ba léegi nekk conseil spécial chargé des affaires religieuses ñëpp xam nañu ne loolu du charge bu yomb ndax euh, këru diine du ñëpp ko xam du ñëpp xam yoon wi yoonu lislaam yoonu aada ak yoonu këru diine yombul man yàlla def na ànd naa moom fu bari yu bëri ak ci këru diine yu bëri ak ci këru aada yu bëri wax dëgg yàlla saa yu ñu egsee ñëpp koy gaaw a xàmme buñ ko xàmmee itamit non seulement danañ ko jox cëram ndax fi mu bokk waaye nit ñi ñu ngi koy jël ca niñ koy gisee bés bu nekk ak na mu jàppee ñooñ bu jëlee parole itamit bu waxee waxam dañ ciy am ñàngat am ci ñàngat ci lislaam am ci ñàngat ci àdduna donc man loolu mun naa ko seedeel du benn du ñaar te ñii fi toog ñi itamit am na yeneen délégation yu ñu ànd ak moom yoo xam ne man dew ma ci bu ñu wàññeekoo itamit la ñuy commentaire loolu loolu moo tax soxna Aminata Tall wóolu ko jox ko chargé des affaires religieuses te lim ko ciy digal ak lim ko ciy xelal bu amul woon njëriñ du toog ak moom ba léegi ndax ñëpp xam nañu kat ñëpp taal ci mbirum dëgg ci mbirum gëm ak euh, gëm li muy def. naa la bàyyi ba waxtu woo dellusi soo ko tubut mu soog ko bind te su bind benn yi kon kenn ku nekk xam ne ni képp koo xam ne yaa ngi def lu baax ah, noo mën a def da nga am lu baax kon sëriñ Abo sant ci taxawaayam ci ci ci ci ci seen kilifa di président taxawaayam ci ci ci taalibe yi ci taxawaayam ci way néew doole yi waaye ci taxawaayam ci personnel bi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey ba ngeen teew fii ci kanam mu yebal leen te ngeen feer lool ci teew gi yebal gi mu leen yebal ngeen ñëw di ko teewal fii sëñ Abo nee na loolu li cant yooyu yëpp mi ngi àndandoo di ko teg ci seen loxo di sàkku ngeen jottalil ko ko euh, soxna Aminta ñu di ko ñaanal bu baax itam ci bis bu tedd bii tey ndax bis bii. bis la boo xam ne l'islam moo jëkk a marqué bis bi ndax bari na lool ay événement yoo nga xam ne ci lislaam yoo xam ne dañ ko waroon di màggal waxtu wu ne ci bis bii la xewoon lu jiitu maam Thierno di ci gisee ak sëñ kon loolu kenn ku nekk xam na ni méritu maam Thierno la ndax bis boo xam ne sunu boroom ko tànn l'islam a ko tànn eh, jaarale ci feem yu baree baree bari yu gën a rëy ci l'islam tey boo xamee ni ci la su sëñ su sunu maam sëñ maam Thierno gise woon ak sunu maam Serigne Touba. yàlla dogal ñuy màggal maam Thierno bis bi mu fi jógee ñu di ko def di ko def di ko def ba ñu nekk ci carrière bi. nekkee ci carrière bi yàlla dogal bis boobu ñëw defe naa eh, ñu naan dañuy tàggoo dem ak duñ def ni sëñ Fallou ni nañ bàyyi bis bi ñu ko daan màggal te di ko màggal ci nis fa soobaan muy bis bi nga xam ne. ci la sëriñ Touba ah, ci la ci la sëriñ Touba gise woon ak maam Thierno loolu moo indi ñuy màggal bisu Nisfu Soobaan bii ndax na ko lislaam tànne woon noonu sëriñ Fall toogal fi sëriñ noonu la ko tànnalewaate njabootu maam na ñu du ko màggal ci bis bi bis bi bañ nañ ko ba des koo baaxoo woor sax loolu kese dina la jox firnde ci ni bis la boo xam ne lislaam ko tànn kon nag euh, ñoo ngi leen di gërëm bu baax baax itam ñoo ngi koy sant bu baax lii ñuy wax sax li li ñu wax nii dëgg la ci kàddoom lañ ko wax de mais mën nañoo wax ne kàddu sëriñ Muntaxa lañ ko ndax fu ñu teew moom lañ fa teewal mën nañoo wax ne kàddu sëriñ Moustapha bu Cheikh Sidi Muxtaar ki la ko wax ndax fu ñu teew moom lañ fa teewal waaye nag sëriñ Abo moom day kenn ci ñun koo xam ne ginnaaw loolu lépp suñu digganteeg moom da koo mate ñu jaar fi yàgg fi mu jëf ko dox ko wax ko di nit di di di nit ku yaru di nit ku amuk taalu bi di nit ku bëgg sëñ Touba di nit ku bëgg ay bokkam itam di nit ku bëgg lu baax te te te di ko jëf waxtu wu nekk itam kon nag sëriñ bi ñoo ngi lay sant bu baax eh, di di di la ñaanal bu baax itam ci bés bu tedd bi tey te tey tey tey tey sàkku yow tamit nga ñaanal ñëpp ndax bés bi bésu maam Thierno la te sa cër ci maam Thierno ñëpp xam na ko. li ma wax léegi rek mën naa wax lu may wax yow miy liggéey ak ñoom lu may wax ci ñoom lu may wax ci yow fekk na ñoom xam nañ ko bu pare su dee noonu xam nañ ne noonu la su dul noonu itam ñoom xam nañ ko ndax ñoom ñooy liggéey ak yow kon nag euh, sa yar sa teg sa taal sa sa bëgg say bokk sa sa sa fu mbokk nekkul nga nekkal ko fa loolu ñëpp xam na ko ci yow fu sa fu waxuma sa mbokk mais koo xam rek fu mu nekkul nga nekkal ko fa buñ doon wax ci moom leneen sax yow da nga suppi wax ja wax leneen lu bokkut ak la ñooñu di wax mu mu mu yiw donte xam nga ca kooka leneen it di nga wax yiw monsieur su te dégg mukk ñu ni Serigne Abo moo wax diw nangam wala moo def diw nangam bis bu ne ma wax ko naa caméra yi moom jël nañ ko fu ne yonente bi li muy tedd tedd jikko la ko yàlla tagg tagg ko ci dëkk Màkka tagg ko ci dëkk Medina tagg ko ci man a julli tagg ko ci mën a woor tagg ko ci jàng alxuraan da ko tagg ci jikko ni ko innaka laa laa xuluq naas wax ko ci alxuraan kon nag sa jikko ji jikko la joo nga xam ne bokk na ci jikko yooyu ñaanal bis bi eh, nga nga nga yàgg koo teewe ñun itam yàgg koo teewe